yow yàlla yàlla na nga nu defal tuyaaba ci àddina ak alaaxira yàlla na nga nu musal ci mbugalum sawara allahumma aatina fi dunya xasana wa fi alaaxirati xasana wa qina adaaba annaar allahumma aatina fi bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na sunu boroom mi ngi ci ndimbalul jaam bi li fi ak jaam bi mi ngi ci ndimbalul mbokkam maanaam daal nit ki li fi ak mi ngi dimbali mbokkam rekk sunu boroom dana ko defal ndimbalam xadis bi muslim moo ko nettali qaala rasulullahi salallahu alayhi wallahu fi awni al maa kaana al fi awni aqih rawahu muslim waxtu julli suba waxtam nawetaa bi juróomi waxtu yu tegal ñeent fukki simili ak benn yu toftal fanweeri saa tisbaar benn waxtu wu tegal ñaar fukki simili ak juróom-ñeent tàkkusaan ñeenti waxtu yu tegal ñaar fukki simili ak juróom timis juróom waxtu yu tegal fukki simili gee juróom-ñetti waxtu yu tegal ñaar fukki simili ak benn loolu mooy waxtu julli ci Tuuba ak li ko bu fekkee nekkoo ba soo ko feetee penku ñaar fukk ak juróom-ñaari kilomètres yu ne wàññil benn simili soo ko féetee soowu ñaar fukk ak juróom-ñaari kilomètres yu ne yokkal benn simili soo ko féetee gànnaar wala Saalum téeméeri kilomètres yu ne yokkal benn simili jant bi dina fenk juróom benn waxtu yu tegal juróom fukki simili ak juróom benn yu toftal fanweeri sa di so juróom-ñaari waxtu yu tegal juróom benn simili yàlla na nu yàlla nangul te nangul leen amin